باسم الإله سلم بيئه لخباب للإيام فاز الذين فازوا على سيام شرم بيئه لخباب للإيام فاز nabi téléspectateurs yi fu waaye mën a nekk duñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax tey jiital ci sunum nuyoo sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar di ko ñaanal suñu borom yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal wu mu naal fa yéene koo liggéeyal sëriñ bi mu yeggale kook sagoom waaye wàcc waay wi ñu koy wàcce ci ki nga xam ne lépp mooma muy sëriñ Saalihu Mbakke moom sëriñaa Afiya rakki sëriñ Touba Xaadim Rasool loolu nag buñu ko déggee dina naxa wax ni jotaayoo nañ cib jotaayam tey kenn ci njabootam di sëriñ Abdourahmane Mbakke moom sëriñ saaliw moom sëriñ Afia ci bis bii nga xam ni moom la baaxoo defal kan jàmbaaram ja kan maamam ju baax ja sëriñ Touba Xaadimal Moustapha waaye nam ak kan nag ki nga xam ne moo ko boole ci sëriñ Touba Xaadim Rasool muy sëriñ Afia Mbakke imaam sëriñ bi. jotaay bii mi ngi ko bokk ak kenn ci moom nga xam ni bis bii da ko cee jox wàccuwaay wu rëy muy monsieur le maire Yelli Fall. asalaamaaleykum mbooloo mi ñuy dégloo ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen sant na gën fee ñëw tey ci bés bi représenté bi waa Ngoy ndax suñ diggante ak sëriñ bi suma digganteek moom day diggante boo xam ne du diggante taalibeek sëriñam waaye diggante mbokk ak xarit sëriñ bi di sama xarit boo xam ne xarit bu wër la di ma jàppale di jàppale waa Ngoy kon ci bësam bii bien que defewu ko Ngoy mais laaj na ma ñëw fii man représenté fi waa Ngoy te am na délégation bu rëy boo xam ne ñu ngi ñëw ci yoon wi man dama jiitu pour ñëw toog waxtaan seeg moom témoigné ne lii muy def nii fii lu de lu raw loolu lay def Ngoy gee mu ngay jàppale nit ñi képp ku am soxla mu ngi lay jàppale kon nag bu bësam bii taxawee ñun waa Ngoy ñun ñëpp tey suñu sañoon commune ba yëpp ay ñëw waaye dafa foofu tey manifestation yu fa am moo tax ñu ñu daal di koy séddoo moo tax man ma ñëw fii ren nag ma fi ñëwee tey man ma maa fi ñëwal waa Ngoy yëpp di féddale ne di we di ci kanamu nit ñi ne sëñ bi sëñ Abdourahmane Mbacke sëñ bu baax la ku baax la taalib bi ñëpp dëkk ba de jëluñu def boppam yëkkatu boppam def boppam comme sëriñ dafa def boppam comme taalibe man damay fekk sans bureau toujours su déggee ne ñëw naa day do taal otoom ñëw fekk mu ba bureau te mën naa toog ma koy fekk si waaye dafay ñëw loolu yëpp pour wane oyofayam ak kéem léegi bi ma ñëwee laa ko naan bés bii de yaa ngi koy def de at daaw def nga ko ren at bu jot nga def ko yal noonu yàlla may ñu koy def ay at yu baree baree baree bëri te yàlla bàyyi la fi lépp loo ci kii yàlla na ko yàlla jàppale ba nga xam ne di ko mën a yeggale jàmm ak sa xel ma ne ko nag bés bi bu ko sañoon daal nga ciy fàttaliku it eh, ñi féet ñi caabi féete ginnaaw te nekk eh, ci région ju Diourbel bi waaw ndax Bambey am nañ fa ay prison boo xam ne yàgg na te nit ñi tamit aussi demewut affaire yi demewut noonu képp xam na ne affaire prison yi metti na li muy def na di ko defal jaamu yàlla yooyu ndaxte ñooñu ñu ngi ci ay yàlla leen teg nattu ñuy ñaan tamit ñooñu yàlla teggi leen natt boobu kon mun a dellu seen njaboot ñun daal loolu nga wax ne daal dinañ koy wax fii daal témoignage boo xam ne daal ñu ngi ko def suñu diggante ak sëñ bi di témoignage moom témoignage bi wër la di wër ne mu ngi jàppale commune bi mu ngi jàppale ñi dëkk ci commune ba mu ngi jàppale ñun responsable yi kon nag bés bi soo fi teewee mel ni ngooy yëpp teew nañ fi mu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balwaax day jiital ci nuyu bi nag sëriñ Abdourahmane Mbacke mi ak njaboot gi sëriñ Touba yëpp eh, di ko suñu kontante ndax man maa ngi dëkk fii ci cité BCEAO Nord Foire ci jumaa ji ci na yàlla ñu la yàlla nattu ñoo yore affaire jumaa ji foofu waaye nag sama njaboot dafa bokk ci ci nekk ci mbooloo mi mu di Papa Samba Fall di sama njaboot nekk ci sama kër waaye sëriñ bi saabu bu ci dëkk bi dana ñëw ba sama kër ànd ay uh, mbokkam ak i taalibeem gan ba mu fa uh, uh, yoonam bi ba mu egseegul sax ba muy laata ñu jub si fii ay rakam ñëw nañu fa kon loolu yëpp ci yëg-yëg la liggéey sëñ Tuubaa bi yàlla nañu ci gën a yàgg nii cant gi ñuy def yàlla nañu ko yàgg taxawee yàlla na yàlla fay leen ak sëriñ Tuubaa ay karo yu ñuul la de waaye ñu ngi góor góorlu ah ci fi ñu jiital xale yi it di ci yoonu siratal mustaqim yoon mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tracé woon kon ne yàlla nañ ci yàlla yàggal ndax ay tuut tànk lañu waaye xam nga ni ko xale bu tënku ci lii ndax eh, du Pape Samba sama doom waaye am na ñeneen xale yu nga xam ni ñu ngi ci cité bi ñoom ñëpp ci fii lañu jokk ci liggéey sëñ Tuubaa bi yàlla nañ ci yàlla gën a yàggal gën leen ci jàppale ñoom it ñu yàgg gën leen jiite yàlla leen yàlla ak sëñ Tuubaa fay Euh, tax liggéey bi yan nañ ci gën a yàgg taxawaay bi yal na gën a yàgg ndax li ñuy def di jëf ay xéewal di ko yóbbu ci ñi nga xam ne ñii yàlla moo leen teg nattu ci prison yi et yal na ko yàlla fay. ñooñu leen fa gaaroon ba ñu dugg fa yal yàlla dimbali leen comme ni ko sëñ bi waxe ba yàlla génn leen ci nattu yooyu taxawaay bi daal rafet na. ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla moom sëriñ Abdourahmane mii yàlla na gën a yàgg ci liggéeyu sëriñ Afiya Mbàkke mi nga xam ne waju wajuram ak liggéey sëriñ Tuubaa ba mu yàgg jiite mbooloo mi yàlla gën leen jàppale taxawaay bi yàlla na gën a yàgg allahumma salli ala sayyidina Muhammad ñu ngi leen di gërëm te di leen sant di leen ñaanal yàlla xam ne bu ñu bàyyikoo ci jotaay bii jotaay bii benn la ci jotaay yi ñu tàmbalee bis bi waaye bu ñu jógee léegi dañuy ànd ak sëriñ bi ak i mbokkam dem fi nga xamante ni bi fa la ñu baaxoo dem ah ña nga xam ne ñoom la baaxoo waxtaanal muy ñi caabi féete ginnaaw mu waxtaan ak ñoom dalal leen waaye berndeel leen ci bisam bu tedd bi eh, ñu gën cee ràññee fu mel ne ak Rebeuss ak forbe fépp bu nu fa jógee nag ñu dikkaat fii nag waajal waxtaan mu teeru gan yi ñu ànd ak moom nag dugg ci baas bi def mu cérémonie officielle bi kon ñu ngi leen di jox dig daje tuuti fu waay nekk tàllal sëriñ bi ñaan ba ci kanam tuuti